leen ko fi tëj ñaata yoon leen ko fi tëj ñaata at la toog pour xaar yaa ngi dégg waaye daan na wax ne du ma jéggi ay néew pour toog ci nguur gi loolu duma ko def tabaarakallaahu waxuma sax Ablaye Wade ndax jullit la Thomas Sankara chrétien la euh, Thomas Sankara ñu bari ñuy révolté di wane ne ñoom tabarak xaw ma pan africain leen koy tuddee xaw ma xaw ma nuñ koy waxee waxeeti ma waaw pan africain nit mu defe naa Euh, ku ko gën a nekk euh, Thomas Sankara mais li yéeme ci Thomas Sankara boo dee topp tabaarakallaahu euh, ni ñu ko reyee jour bi ñu koy rey fekk na mu nekk ci réunion yàlla dogal ñi ko doon rey bi ñu ñëwee dañoo éliminer mbooleem ñi ñu fekkoon ci biti chauffeur yaag tabaarakallaahu yenn garde corps am yëpp dañ leen rey ba pare léegi nag ñëw ci salle bi nga xamante ni fi la ñuy defee réunion bi ne leen génn leen ndax ñoom dégg nañ bal yi daal leen di xamal ne Thomas Sankara soxla génn leen ñi nekkoon ci biti ñëpp rey nañ la Thomas Sankara génnee fital bi mu yoroon teg ci kaw taabal ci wax ak ñi mu bokkaloon réunion bi ne leen aajewul ngeen di génn ndax soxla wuñ leen man la ñu soxla damay ragal ñu rey leen te da ngeen a am njaboot kon bàyyi leen man mi ñu soxla ma génn dee benn yoon te yéen ngeen mucc su ko defee man mën leen maa rey mais sama idéologie mënuñu ko rey yéen ngeen ngeen ngeen yenu ko yóbbu yaa ngi dégg daal di génn ak ñaari loxoom tàllal ko wane ne jàmm rek moo ma tax a jóg bu ngeen ma bëggee jàpp comme otage prisonnier jël leen ngeen yóbbu tàllal ñaari loxoom ñu roose ko ay bal tabaarakallaahu ba mu tooy xëpp ak deret mu daal di daanu daanu dee kooku sacrifié na boppam pour ñi mu bokkaloon réunion bi mucc bu doon keneen la fitalam googu lay yor di tiire ci biir wala muy def leneen ba gars yi daj dajji bunt yi dugg leen fekk leen ci biir rey leen kon kuy roy Thomas Sankara da ngay roy léppam nit la woon koo xamante ni exemple la donte bokkuñu diine mais exemple la woon ci ñi nga xamante ni dañuy xeexal Afrique Euh, dafa am benn kilifa ci ñi jiite euh, ñi ci opposant yi koo xam ne dañu wax ne bi Macky gañee euh, yoon bële dañu waxoon ne ñoom dañuy génn pour manifester mu ne leen man duma génn di manifester di rey benn doomu jàmbur yaa dégg du génn di manifester di rey benn doomu jàmbur def na ci sax ay waxtaan ne ku leen sant ne na ngeen génn manifester wu moom mu nga denc a njabootam yaa ngi dégg moom moomu tey moo changé waat waxam ne génn leen ngir intérêt boppam booba intérêt réew mi la woon ndax dañ doon manifester pour intérêt réew mi bii nag moom intérêt boppam la mu ne nanu génn manifester wu ku ñu ci rey itam sa yaay juraat ana ban baat moo gën a soxor baat boobu ana ban baat moo gën a néeg baat boobu kon tabaarakallaahu bëri na ko yor turu jullit mais turu yéeféer la waroon a nekk bëri na ko yor turu yéeféer mais turu jullit la waroon a nekk ndax kële jëf ja def di jëfi jullit mooy li Thomas Sankara def am ñoo xam ne seen jëf-jëfu yéeféer la tabaarakallaahu